benn Pierre benn Pierre saar wàll ci lindiin di bataaxal bu jëkk bi yàlla may Pierre mu bind ko man Pierre ndawul Yeesu Kirist maa leen di bind yéen doxandee mi tasaaroo ci diiwaanu Pont Galasi Kapados Asi ak Bitini yàlla baay bi tànn na leen ci li mu leen xam bu jiitu te sedde leen boppam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 bi ngeen xamagul yàlla waaye na seen dund gépp sell ni yàlla mi leen woo selle ndaxte mbind mi nee na selli ndaxte ku sell laa ginnaaw nag yàlla mi ngeen di wooye baay mooy àttee jëfi ñépp te du gënale kenn saxleen ci ragal ko diirub seen ngan ci àddina xam ngeen ni yàlla jot na leen ci seen dund gu tekkiwul dara gi maam ya nekkoon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 waaye kàddu borom bi day sax ba faw te kàddu googu mooy xabaar bu baax bi ñu leen doon yégal